jàpp leen ci rek invité soo mënul toog da ngay jóg nga nga def bu Respect, respect. respectez les décideurs. Soyez Thank you. may may leen vous plaît, s'il vous plaît. Vous non. C'est de grandes person eh, Attends, attendez. C'est de grandes personnes qui ont fait tasser. nest pas hein? Non, non, attendez. Attendez. Attendez. Non, mais nous nous avons de cœur. Oui, oui, oui, non. Non, nous avons déglu leen moom. moom kenn kenn invité wu. waaw mais dañuy déglu loonte wala. waaw mais quand même bon je tiens je tiens à donner. une précision. Je tiens à vous donner une précision, une précision. ñan ñan ñoo leen woo rassemblement pour la vérité ànd si dëgg ñoo leen invité. def leen ndànk non dégg nañu dégg nañu saa waay saa waay wuy ma wuy ma wuy ma l'insolence dafa yomb nañ joxante cër may may préciser boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ci njekk ak teranga mu rafet bu ñu koy yàq en queue de poisson moom mii peut-être xam naa xërëm a ko wax loo il n'est même pas membre na l'Assemblée pour la vérité xalaatam la wax je ne la je partage pas donte dama jàpp ne jarul ñuy impatienté wu. mais il faut pas lui tenir rigueur il s'est trompé mais excusez-le et puis on avance. jullit nit day jum daal. waay waay waay waay loolu yëpp tubaab la c'est pas méchant. waa RV yi leen woo ngeen bàyyi ngeen bàyyi seen yitte ñun ñemewuñu leen wax daal ay ngeen dem wala ngeen toog on n'ose pas le dire parce que c'est pas sérieux mais on avance quoi. xam nga xam ne c'est même pas sérieux. bon euh, Abou a, a, a fini son speech Clédor waroon na parole moom tam pour cinq minutes le temps de donner une participation après ñu jël ay question levées xam naa ne nit ñi fi yàgg des fois gars yi sur les nerfs mais avec de la de l'attention bon j'aimerais bien préciser par rapport aux questions pour parce que mi ngi yàgg te les nerfs ñu commencé di kii tàngaay bëgg yi Euh, pour question yi nu mën koo tënk maanaam bu mu dépasser cinq questions au maximum voilà wala trois sax questions voilà donc voilà si voilà waaw waaw d'accord si s'il vous plaît voilà. waaw bu ñu sax bàyyi question bi de. exactement voilà. ok d'accord léegi koy door. waaye saa bu baax duñ ko jël suñu micro ndax buñ ko suivee bu xam buñ ko xamee. buleen leen bu toppante si si je comprends je comprends c'est on comprend léegi xool léegi seet leen ma ci man xaw ma maa leen woo seet leen ma ci man ah donc c'est tout ah, et on s'excuse pour tout Clédor euh, tu tu as la parole s'il vous plaît s'il euh, s'il vous plaît maa ngi ko mu jël parole mais di déglu di déglu waaw c'est bon bismillah bismillah. Euh. doo ñëw ah ce que doo ñëw nii. c'est bon c'est bon kaay kaay. ñëw ñëw. voilà c'est euh, euh, ma wax ci kaw. damay commencer rek jéggalu presse bi. ci incident bi fi am ci koo xam ne mu ngi doog a ñëw euh, prévoir uñ ko woon ci mu wax donc mais l' incident est clos may ndokkeel euh, Cheikh Omar Diagne euh, ak Abdou Karim Gueye mi nga xam ne moo waroon toog fii sama place wax mais tey moom laay waxal parce que moom nanguwul a wax tey donc may rafetlu d' abord seen libération doog a ñaawlu anam bi ñuy téye nit ñi kaso fii Sénégal parce que moom ci jàppam bi mujj comme ni mu ko waxee woon ci benn conférence de presse conjointe bu ñu defoon la te propos yi mu tenir man ak Dame Mbodj ñoo ko njëkk a tenir moom ñu seppi ko dem téye ko kaso tout simplement parce que dafa samp benn partie boo xam ni dafa am un soubassement un fondement religieux ñu am ci luñ ciy tiit parce que benn système masonique moo ñuy moo ñuy donc ñu jàpp ko injustement au prétexte au prétexte que dafa jox wax loo xam ne dafa remettre en cause euh, légitimité euh, euh, président Macky Sall dafa remettre en cause les institutions et leur fonctionnement kon ñun ci saa si ba ñu ko arrêté moi j'ai fait une intervention revendiquer exactement les propos qu'il a tenus sans être interpellé donc ça veut dire que ñoom moom moo moo leen intéressé woon xaw ma lu ci dugal sax Abdou Karim Gueye expliqué nañu depuis le 5 décembre dañu nekk en détention arbitraire